al ibaadatu wal xidma maa ngi ci loxol sëriñ na yàlla nangu te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj nee na eh, njanaaw yi eh, ndax a laab wala am na yuñ ci sa tey naka noonu yi dox ci suuf waaw gannaaw yi da ci mazhabu imam malik yëpp yëpp yëpp dagan njugub daal lañ ci fette moom dañ ko sib njugub waaye yeneen yëpp buñ leen ren dee lekk leen dagan donte tan la donte rab buy dunde sobe sax la moom moom ay nefere mooy nekk sobe waaye du tee lekk ko dagan buñ ko rendee eh, yi dox ci suufit yu laab yëpp yu dagan lañ buñ leen rendee bu leen rendee bu dee lu am tooke nag buñ mënee wóolu tooke ci la bu la leeree ne boo ko lekkee tooke ci lor la lekkul dagan ngir loola waaye soo mënee dafay pexe ba lekk yàpp woo te tooke ji du ak si koy loolu boo dagan nag yow lu mel ne jaam ak yooyu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na luy àtteb lislaam ci li ñuy wax jaay caabi nit koo xam ne day luyee ab magasin di ci liggéey bu yàgg mu jaay ko keneen kooku ñëw jël ko di wéy di fay liyaas waaw loolu de boroom xam-xam yi nañ ko ci anam gi mooy moom njariñ la la moom danga luyee ab magasin boo xam ne danga ne waa ji ci misaal fukki at wala sax amuleen ab waaye daal yow yaa ko luyee di ko fay weeru de nàngam kon yow yaa moom njariñ li njariñ loolu nag su la neexee nga jaay ko keneen koo xam ne bu ñëwee moom day jël di jariñoo waaye du tee day wéy di fay luyaas moom xam ne yow moom moo woon barab bi luyaas nga ci def nag eh, sañ nga ko jariñoo àq jariñoo googu da yaa ko moom loolu sañ nga ko jaay keneen wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ci bitim réew ni ñuy jëndee kër nit ki su bëggee kër day dem wax ko banque am nee ba xool kër ga ba xam li war jar nee na mu jël xaalis ba dugalal la sa compte ngir nga fay nga laaj ndax jëflantin woowu dagan na wala déet waaw bu fekkee ne bi mu la dugalalee xaalis day ngir nga fay kër gi lam la dugalal rek rek ngay fay bu ba dagan na waaye bu ca tegee intérêt na dagan waaw loolu mooy jëflante ci riba lebal la ab som sàngam di la fay lu ëpp loola loolu daganul su fekkoon nag banque day def li ñuy wax Euh, muraabaxa nga xam ne da koy wax ne ko kër gi laa soxla banque dem jënd kër gi sañ na koo jënd fere ci lam jee fere fay la muy fay yëpp ne la ñàkk naa ci nangam boo ma tegalee nangam ma jaay la ko waa banque day mel ne kuy def commerce day jënd kër gi la jaay waaye da koy jënd moom ko nag wax la lam ko jëndee wax la lam cee teg wala juboo nga jënd loolu moom dagan waaye bu fekkee ne day ñëw lebal la xaalis te xaalis bi mu la lebal euh, yow la ko jox nga fay nga jënd kër gi te bu lay fayu ko fayu ko lu la ëpp la mu lebal su boobaa riba la wallahu mi laaj nee jëfandikoo li mag ñi daan def ay xob wala ay ay reen na la bokkoo ko dee sangoo daan la jariñ nangam ndax dagan na wala déet bu fekkee ne wéra dig zahir guñ xam lay faj da moom dagan masalan ku yor wér di yaram bi dafay góom ñu ne ko boo dee sangoo xob sàngam baax na ca loola mën a bu dee lu ñu naan loo xam ne daa am di goo xam ne booy naan boo xoojee ndox xàncee wala nga xooj xob ya boo ko naanee dana ko faj loolu ci buntu faju la dagan na bu fekkee ne garab gi lu laab la nga xam ne sobe newu ca wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na day jaay ay carte mémoire waaye nee na carte mémoire yi day def ay musique moom du ko déglu waaye nee na da koy jaay ndax dagan na wala déet waaw bu dee musique bu araam day jaay ko araam na musique bi bu fekkee ne wax lu bon wala muy sàmmee ci lu bon wala muy xiirtale ci bon wala muy dox diggante nit ki ak i farataam su boobaa lu bon la lu bon nag kenn du ko def kenn du ci dimbale ko koy def te ku ko jaay ku koy def yaa ngi ko ciy dimbale allahu taala aalam mbokk mi laaj nee na kuy julli waaye njëkk a sëlmal ilimaanam lan moo ko war bu fekkee njuumte la day wéy déglu ilimaanam bu ilimaanam sëlmalee mu sëlmalaat dara waru ko bu fekkee moo ko tey nag julleem yàqu na wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na yonent yàlla nuux alayhi salaam am na siiw am na ñetti doom muy saam yaafir nee na am na it ku ñuy wax karmaan nga xam ne wax nañ ni moo la boon mu ne ndax am na yeneen doom yu bokkute yooyu loolu nag moom awma ci xam-xam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee koo xam ne dafa leboon ci banque leb bu am intérêt nee na laata muy matal nag mu faatu am ku jël engagement nee na dana fay bor mu ne ndax su fayaale riba ja dana ci am bakkaar waaw ki leb de bu fekkee ne ñàkk pexe ko taxoon a leb nga xam ne day dem ba sës mul beneen bunt bu fa sës budul booba te li taxoon muy leb moom mënta ñàkk ci dundam su boobaa moom amul bàkkaar ci lim def waaye ña ko lebal ñuy gàddu bàkkaar ba kon su boobaa yi ku ko dimbale ci fay fayal ko it amoo ci bàkkaar waaye bu fekkee nag leb gi nag euh, du lor waaye xëy na moom moo ko bëggee noonu rek waaye du lor mënoon naa dund ci lu dund muy leb kooku nag bu lebee eh, leb goo xam ne riba da laxasu su boobaa leb ba leb daganul su boobaa nag képp ku jàppalante moom yaa ngi jàppalante moom li ñuy tere wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañu liggéey ci ab sànce suuf wala ciment wala yu noonu ne nit ñëw ñaan ko ci may ko ndax dana ca bàkkaar waaw bu fekkee ne boroom sant ko te xam ne néexu subaa daganul ci moom di ko ko may la jël buy lu moom bu fekkee nag euh, xam ne euh, wala ñu wax ko borom alal wax ko ne ko xeñ nga ko subaa nag bu fekkee daal lool amu ci moom kuy maye day maye lu moom moom dañ koy liggéeyloo waaye moomut bagage yi moomut alal ji kon waru ko maye wallahu taala alam mbokk mi laaj nee dañ doon julli liggéey moom nee na nee na ñu fekk ilimaan di julli ba am ñaari rakka nee na ñoom ñeenti nit lañ nee ñu dugg si ànd ak ilimaan nee na bi ñu ànd ak ilimaan nag ilimaan am ngànt wuutal leen moo ne ñoom nan la ñuy àggale seenu julli euh, wuutal day xëy na yu mel nii day niñ ko waxee nii mu amee nii néew na moom aw cax la gën a jege waaye bu amoon nag ndax wuutal moom ñi sës ci ilimaan lañ koy def te bu dee jàkka moom ñi yéex ñëw sës ci ilimaan dana ma jaaxal nu muy amee waaye bu amoon nit nekk masbuuq ilimaan jiitu ko waaye da ko wuutal wuutal gi nag balaa mën a nekk mooy rakkaa bi bi am ilimaan amee njuumtali def fa fekk ba mu def si dara fekk na dara ci rakkaa bi kooka la mën a wuutal su ko wuutalee masalan liman li mu waxee nii mu am eh, ñetteelu rakka mu ànd naag liman benn rakka liman ragal ko ñaar liman wuutal ko su booba day àggale julli ci liman daal julli benn rakka boo xam ne comme geela wax fàttee képp la ci jàng yelu ko toog taaya jullit liman nag ñi àndoon ilimaan te ñoom matal dañuy toog ñi nga xam ne it ñoom ñu ànd ak waa ji ñu wutal eh, juggandoo ci julli gi dañuy toog su ko defee kiñ ji wutaloon jóg àggale ñaar rakka yi ko iman ray mu jóg fay ko daal di jàng fatiha saar eh, mu ñetteelu rakkaam ndax day mel ni nag liman benn ak benn bii mu def mu ñaareelam mu indi benn rakka jàng ci fatiha ku saar ko daal di toog taaye sëlmal bu sëlmalee nag ñu àndoon ak iliman tamatal dañuy sëlmal bu ko defee ñi ñu duggandooloon nag ñoom door a jóg nag mottali seen ñaar rakka yi leen def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo kuy jëfandikoo yóddu maaxuus waaye bu dee suba gi waxtu yi ko war a jëfandikoo xëy day dox fa muy liggéey nag day dox dem fa ne moom dong mooy ànd ndax mën na koy def ci yoon wi wala néeg ba ak ndax nee bu demee ba noppi moxtaar mi ak daro yi lépp day waaj waaw bu fekkee ne day moom mën na ko def ci waxtu yi mooy li mu toog daf ko ci waxtu yi mooy li gën waaye bu ko mënta toog dafit mu koy def di doxit mën naa nekk waaye li gën nag mooy mu toog di wut xibla waaye bu ko leeree ne bu dee néeg loolu faw muxtaar ma lay jeex daruri jeex mu door a mën a toog su boo nag mën naa buy dem mu def werdu ci yoon wi wallahu taala alam mbokk mi laaj nee war koo caw ndax la gën mooy mu sutar boxam te tuub wala mu dem ci kilifa diine ñu caw ko yoon waaw yonent yàlla muhammad alayhi salaam de nit mas naa ñëw wax ko lu mel noonu ba mu ko àttee ba noppi daa wax ne yu mel nii ku ko defati yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ndax ku ñëw fi man wax ma li nga def de dinaa dawal ci sa kaw àtte yàlla bi loolu dañ cey dégg ne kon li gën nit bu defew ñaaw te fu mel noonu yàlla suturaal ko ba kenn yëgu ko mu suturaal boppam te tuub tuub tuub bu sell mooy buddiku ca bàkkaar ba fas yéene li des sa dund doo ko def rëccu la ci jot am su boobaa suñu borom mën na koo jéggal ci mbaaxam ndax nee na bàkkaar yëpp la mën a jéggale bu ci dul bokkaale te bokkaale it bu ko borom tuubal sax jéggal ko maanaam ku ko faatuwaale te tuuboo doo ko baal waaye bu dul loolu yàlla mën na ko baale wallahu taala alam mbokk mi laaj nee ab jullite gi nii boo xam ne fa muy liggéeyee ka ko jiite day tere ko fa julli moom nag muy def bu julli jotee mu génn làqtu feneen julli muy laaj ndax lu baax na wala déet waaw la jaadu woon de mooy ku mel noonu fu muy bindu ngir di fa liggéey moo xam te ñoom bu julli jotee mu sañ julli ab jullit fépp fu ñu koy teree daf ndigalu yàlla foofu du barabam kon buñ ko nangulee baax na buñ ko nangulut it sax ci yàlla dana ko wërsëgal ndax nee na wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa min xaytu laa yaxtasib kon euh, li ci ab yi nga xam ne yàllaa ko gàll ci loosa wutul ko waxtu fu muy liggéey fu ne mu wax ñoom ci ne moom kat jotee dara ko si yéene du mu yàq ci lam waxante ñoom am maanaam ñu tële ko taree nga xam lool ba noppi nag dugg ci liggéey bu mel noonu loolu jullit wuru ko def allahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku fase soxnaam te xamul ñaata yoon la ko fase ndax ay jullit xëñ nañoo dox ci di leen jubale ngir defaraat diggante bi waaw li mat a gëstu bi mooy fase ñaar la wala ñett la wala benn la moom jàpp naa ne ñi ko séq mu ump ñëpp du yomb bu ko góor bu léegi góor gi ku laaj jigéen ji wala nga laaj ay bokkam danañ wax ne fase na ko ndax saa fase amee rek li ci bari dana am ñu ko yëg ci mbokk yi su xasee man ñett nag moom soxna si dootu sañ a ànd ak moom lu dul daa sëy fenn ba tas idda waat ba idda jee jeex ci la borom këram bu njëkk bi door a fay ñëw di war ñetti fase yooyu nag mën naa doon ñetti fase nga xam daa takk soxna si ñuy sëy ba yàgg mu ko takkaat bi yàgg mu faseeti ko takkaat ko jabar bi yàgg na mu faseeti ko fasal ñetteel moom fu mu ko xasee jib rek ca saasa rek moom mu mm, sëy ba dog na du ko sañatee takkaat lu du baax da saw iddaam ji jeex keneen takku ko yàlla dogal seen diggante jeex mu iddaw la naka noonu bu fekkoon daa ñëw ne ko fase naa la ñetti yoon it ci masa Maalik ñetti fase la kon mu doon ay fase yu toftaloo dem dikk dama dikk wala ci benn baat la taw waxoon ne ko fase naa la nangam yoon bu ko xasee wax rek ñetti fase tab loolu mooy mazhabu al imam Malik radiallahu alam mbokk mi ñuy laaj ne na koo xam ne tiim mooy farata mu ñëw ci jàkk ji tiim ngir naafila ndax buy julli farata day tiimaat waaw tiimu naafila dee su ca julli farata bu doon saxaan bi nag mën naa nekk mën naa tiim julli ci farata bu sëlmalee jokk ca naafila fekk yéene woon na ci ginnaaw farata mën naa julli farata ji daal di taxaw naafila ci fekk nag yéene na ko te jokkal na ko amma bu tiimee ngir naafila moom bu farata ñëwee day tiimaat wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na joxe dugub ñu jox la jën wala gerte ndax dagan na waaw loolu de dagan na bu dee teew bi teew ndax ñam ak ñam dagan na jaayante leen bu fekkee ne ay xeet yu bokkul la moom nga wax lu mel ni jën ak dugub su boobaa ëppulante ca dagan na jox la kilo dugub nga jox ko ñaari kilo jën leblante bu fekkee nag ñaari ñam yu bokk la ceeb ak ceeb la wala dugub ak dugub wala jën ak jën moom teew mi teew lay doon barci barci lay doon maanaam lu ab ceeb cher cher moo beneen ceeb bi boo ko doon bu ngeen ko doon jaayante mix lan bi mix lu wute wute njëkk sañoo euh, ne jox ma ci ceeb bi benn kilo ma jox la ci ceeb bee ñaari kilo loolu daganut riba la nga nag jaay ko sa ceeb mu fay la xaalis nga jël xaalis boobu jëndaat ci beneen ceeb am naa mu jox la ceeb nga jox ko beneen ceeb te tolloole wuleen ko wala du teew mi teew loolu daganut bu dee yu wuute nag mën nañ koo jaay ëpplante ci waaye na nekk teew wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax nit ak jinne mën nañoo sëy waaw imam Maalik bu ñu ko laajee loolu nee gisut lu aay ci loolu ci diine waaye nag nee na bëggu ko moom ndax day ragal bëggu ko ndax day bañ jigéen jekki-jekki ëmb te kenn xamul boroom këram mu daal ne jinne ma takk ëmbal ma loolu mën naa sabab yàqu gu bari ci xel yi moo tax mu ne moom bëggu dal ko koy def donte gisut ne aay ci diine wallahu taala alam bokk mi laaj nee na dafa ilimaan bàyyi ci benn rakka ab sujjóot nee na mu sabbal ko sabbal wuyu ko muy laaj ni muy def waaw ci masa bi de ñaari eh, ñaari ñaari am na ci loolu waaye bi nekk moo tamat mooy bu ko sàbbaalee sàbbaal wuyuwu ko day sujjóot moom maa foofu dañuy wax ne bu waxee moom julleem yàqu fi ñuy wax naan julli boo xam ne ngir defar julli gi la du yàqu julli barab boobu bokk ci kon bu ko sàbbaalee sàbbaal wuyuwu ko rek na def la iman bàyyi moom mooy bu la sëlmalee julleem baax moom maa moom imaanu julleem yàqu wallahu taala alam mbokk mi laaj ne nisaa bi xaalis jamono yi fan la toll li boroom xam-xam yi dëgëral dëngal ko de mooy jamono ju nekk buñ bëggee xam nisaab ci alal dañuy xool njëgu juróom-ñett fukki garaam ak juróom ci or or bi nga xam ne bu ñuy dem di wuti or moo ngi ñuy génne ci pax ma or boobu lañuy xayma njëgam ci xaalis bu mën a doon bu dee ci Sénégal CFA bi bu dee meneen réew noonu la ca mën a jënd juróom-ñett fukk gramme ak juróom loolu mooy nisaab ba fi mu ne nag ma mujjee laaj loolu ba tey weesoo gut lu bari ñeenti junni nisaab boobu kii gramme or boobu léeg-léeg mu yées ko tuuti léeg-léeg mu wees ëpp ko tuuti ba tey sore boobu kon mën nañu jàpp ne gramme or vingt mille francs loolu boo ko multiplier par quatre vingt cinq sept cent mille francs lay jox bu demoon bu wàcc yées loolu naka noonu day yées waaye bu yéegoo nit dafa am koo xam ne euh, góor la di ab jullit waaye yor soxna soo xam ne la nee nag góor gi faatoo ñoom ànd nañ ci rob ba ba def luñ ko luñ ko war a defal lépp léegi nag ñu del si muy laaj na njaal mi nu mu war a ndax ni ñuy jaalee ab jullit dañ koy jaalee moom jigéen jooju nga xam ne chrétien la walla déet waaw jaal de mooy defal ko aw tiis dal ci moom jaal de yémale ko rek képp ku tiis nga dem defal ko rek loolu xeetu jaale la wolof nag moom su ko jëfandikoo rek ci ku faatu la koy jëfandikoo waaye cosaanu baat bi ci arab moom ku amu tiis nga dem di ko defal loolu la su boobaa nag man fi ko def baax naaw fekkoon nañ jàmm ñaanal ko yàlla dafa ko jàmmi àdduna safaan bi kay loolu bu fekkoon te ne ki faatu mooy chrétien lañ wax ne kenn du ko ñaanal moom du ko ñaanal yërmande kenn du ko ñaanal jéggal kenn du ko ñaanal tabi aljanna waaye jullit bi nga xam ne moom faatu lépp lañ ko defal ñaanal yëpp moom chrétien bi nag ci mbiri àdduna kon mën nañ ko jaale mën nañ ko jox ndimbal jaxal yooyu ñuy wax ma ne nag ko jox ndax loolu ci buntu dimbalante ci àdduna la te laa yanhaakum llaahu ani lladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim loolu ci xeetu bër la bokk kon may sa ko dimbale jox ko alal ñu dimbale koo ko ndax borom këram faatu na xëy na foofu li matal leeral rek mooy kooku euh, bu ñuy miraas moom du am ci alal bi ndax jullit ak yéefar duñu donante donte soxnaam moom waaye duñu donante wallahu taala alam mbokk mi laaj ne nag am bori julli yoo xam ne bor yu néew la ñu tuddee asiir kañ wax du julli ba juróomi julli mu ne ndax toftale waajib la wala charte la waaw dañuy wax ne yasiru faayda toftale ko waajib la waaye du charte loolu mooy ne ku lànk dañ koo toftale yëpp dana baax waaye am nga bàkkaar bu fekkee ne moo ko tey bu fekkoon ne charte la nag moom boo ko toftale boo ko toftalewut du baax misaal euh, tisbaar ak takkusaan ñaari julli yooyu bokk waxtu ñoom toftale leen waajib la sart la bu takkusaan jotoon yow jullee tisbaar ba noppi nga xam ko ba noppi jug di julli takkusaan takkusaan julli baaxul te it am nga bàkkaar ci la ndax ndax bàyyi nga farata ba noppi xëtt nga ab sart bàyyi farata day waral bàkkaar boo ko teyee xëttu sart day yàq jëf amma bu fekkoon ne diggante takkusaan la ak timis timis jot Eh, ñu noddu timis ba waaje julli timis nga fàttaliku ne julli woo takkusaan nga lànk daal di wéy julli timis wana ko timis yi baax na ndax toftalee takkusaan ak timis waaye jib la waaye du sàtt ci tay gi nga ko tay lànk ba ñu njëkk a julli ñu njëkk a julli eh, takkusaan waaye julli a baax doon doon sopp na nga baax loolu mooy wutale charte ak wàllu bàyyi charte day yàq jëf bàyyi waajur nag yàq jëf waaye day waral bàkkaar bu fekkee ne yaa ko tey nag te xam ne daa am jigéen bi mu doon waxtaanal ko tax ko takk soxna nee na mu wax moom nag kii wax ji am lu génn ci moom mu laaj xam loolu bàkkaar la de waaw bu fekkee nag ne dafa yëg bànneex di bànneexu ca wax ja yooyu di wax ak moom ba génne dara day loolu bàkkaar la ndax ginnaaw ci wax tool rek àgg ci rek biir bànneex moom bu fekkee nag mu jékki-jékki dikkal ko noonu la rek nga xam ne euh, waaju ko nekkul di ci xalaat di ci su waaru bàkkaar ndax loolu def mel ne teyu ko waaye jàpp naa ne it nag ngoro du maye nag wax ci àgg ci yoo xam ne day dem ba muy mu yëg dara bu dee loo xam ne nag lu ko dab la rek nga xam ne day mel ne jubluwu ko woon waaye daa jékki-jékki dikkal ko moom dara nekku ci waaye daal ngoro nit daal du illay kon mu saña de waxee ne moom waxeenu kum doon soxnaam ba mën a bànneexu ci moom wallahu alam mbokk mi laaj koo xam ne ajjuma dafa am amul ndox nu muy def waaw jullit ajjuma ku amul ndox day tiim julli ajjuma fi ñuy waxee ne ajjuma de su ko tiimal mooy kii tiim ngir xatu waxtu xam nga tiim ñett moo koy waral ñàkk ndox ñàkk mën a jëfandikoo ndox ndax wéradi waaw ak ñàkk mën a jëfandikoo ndox ngir xatu waxtu bi koo xam ne nag dafa wéradi bi mënut a laal ndox kooku day tiimal waxtu yëpp julli yëpp farata yi sunna yi ajjuma yëpp day tiim bi kii tiim ngir ñàkk ndox it noonu kii nga ndox amul kooku it day dem julli ji tiim ki nga xam ne nag sëñta tiimal ajjuma mooy kii tiim ngir xatu waxtu mooy ndox maa ngi nii waaye nag dafa xat ba xaju fi xëy na loolu ci sangu lay gën a jàppandee ne bu doon sangu balaa balaa napp ci jàngaayal rek ajjuma ji dañ koy wax ne na daf ak na bu ko ajjuma rawee bu julli tisbaar waaye duñ duñ wax ne xataayu waxtu yi tax kon na bàyyi tiim bi wala bàyyi sangu bi ngir dem di tiim di julli ajjuma kooku rek la wax ne du tiimul ajjuma wallahu taala euh, mbokk mi laaj koo xam ne jigéen la dafa gis baax fekk danam kuy jàng ndax day taxaw njàng de waaw kuy jàng ak kuy jàngale mën jàng alxuraan mën nañoo laal alxuraan te fekk laab bu fekkee ne jigéen la euh, wala di dafa gis baax moo xam dafa gis baax wala mu ni xaas te doon ab donga wala mu doon ab jàngale subaa may nañ ko loolu naka noonu ku yore baax it mën nay jàng alxuraan bu ragalee du koy fàtte dootul jàngalekat waaye booba mu tari bu dee mën nay tari alxuraan ngir ragal koo fàtte amma bu dee kooku mooy ki nga xam ne di jàngalekat waaye jàngalekat bi moom wala donga bi moom mën nay wéy yoru jikkeem di jàng te fekk mu gis baax wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ndax jàngin warsh dafa am ay wuute yu ci am ndax daa gis ne dañuy jàng ar kufu an ñu jàng kufu warsh de euh, ci jàngu qiraatu naafi la bokk imam naafi am ñaari riwaaya muy warsh ak riwaayatu qaalun euh, warsh nag am na ñaari tariq muy tariqul azraq ak tariqul asbahani naka noonu e, jàngkat yëpp am na ñaari waaye am na ñaari ñaari tariq yooyu e, tariqul nag daa mel na fii moom lañ gën a jëfandikoo moo fi gën a siiw ñoom ñi ci ci warsh loolu ñu ko war a jàngee mooy kuufu ana xadun ana kuufu an kaaf gi dañ koy mas mas ko faa gi ñu mas ko mas ko waaw gi ak hamza tege ci kaw bu ñu daan hamza waaye gi ñaari maska yi néegi ñaari maska yat yooyu ku fu an euh, noonu googu ne ci an gi ku an dañ koy mas waaye maska gi ñu mooy alif gi ne ci ahadun la ñuy jëli maska daan ne ku ana su ko defee nag alif googu kenn ko jàngate ku ana ahadun moo tax war suy jàng ku fu an ahadun déedéet kufu an ahadun déedéet kufu an ahadun kufu an ahadun noonu lañ ko doon jàng dëgg-dëgg loolu mooy pareexul azraq pareexul asbahaani yi ko loolu waaye jàpp naa ne it xaw mu ne ak wuute xaw ma wóoruma ba xam ak wuute am na ci jànge neneen waaye daal bu dee pareexul azraq bi gën a siiw fii moom ñu ëpp ci ñu jàng fii war jàpp naa ne moom lañ jàng ñu ci ëpp moom noonu lañ ko war jàng du kufu an ahadun du kufuwan ahad warsh moom du jàng foofu ak waaw alhamdu gi la jàng yeneen xiraa eh, yi wala yeneen riwaaya ñoom ñoo koy jàngi waaw waaye bu dee eh, warsh moom ak hamsa lay jàng ba noppi it eh, alif aji ne ci ahadun du jàng ako day jël maskaam jox tanwin gi nekk ci an muy kufu ana mu daal tëb alif gi ne xadu kufu ana xadu loolu it lu mat a sonal la ma tey teewlu ndax ay ñum dana ci di am mel ne xula aouzu am nañu koy jàng xula aouzu te loolu njuumte la ndax euh, agawu euh, wari ko jàng boo xasee wax xula ndax xul aouzu moo doon ci sànni ñu jël euh, masque gi ne woon ci ah jox ko laam gi muy xula boobaa nag duñ jàngati aji ñu wax xula aouzu bi rabbil qul a'uudu bi rabbi nnaas noonu lañ ko war a jàng ci ñaa ngeen warsh tariqul azraq bi nga xam ne moo gën a siiw wallahu taala alam